gars yi di leen wax rek ngeen continuer di like di partager jaajëf ba beneen xeme waaye Gaston yemul ci Gris Bordeaux rek ndax Gaston dafa dal Youssou ma jigéen Ndour borom observateur borom RFM borom TFM mu yàqu ko li ne xeme ndax moom ci li mu jàpp observateur Youssou Ndour ñoom ñoo bëgg a yàq combat Balla Gaye Gris Bordeaux ngir ñoom ñu tëgg ko loolu nag ay wax yu doy la yemu fa yemu fa mu ne Youssou Ndour ni mu waxee Youssou Ndour Macky Sall xaalis rek la Youssou Ndour toppee Macky Sall moom nag nee na dafa ànd ak Macky Sall waaye toppewul Macky Sall xaalis mais li jaaxal nit ñi mooy Gaston lu ko neex lay wax fan yëlee gis nañu ko mu génn dal ci Moussa Diop directeur Dakar Dem Dikk Moussa Diop ñëpp xam nañu foofu moom dafa wax ñombe ndax dafa dem Sen TV télé Bougane Gueye Dany te ñëpp xam nañ ne Bougane Gueye Dany neexawul ak waa Macky la Moussa jóg dem fa di wax naan Macky la du am trois troisième mandat. loolu gaa ñun daf ñoo neex dégg lu mel noonu daf ñoo neex waaye nag tubaab dafay wax toute vérité ne pas bonne à dire bi maanaa nit ki du lépp rek du lépp rek ngay sañ wax. boo nekkee ci gouvernement Macky Sall wala nga nekk directeur général Macky Sall Macky Sall ne bëggatuma kenn wax ci troisième mandat ñu ko fi jot def dàq nañ leen Sori Kaba wax troisième mandat di wax ne Macky Sall mënul am troisième mandat ñu dàq ko euh, Moustapha jaxate gis nga dafa nekkoon di wax lu ko neex mu wax moom it ñu génne ko APR lu tax nag lu tax nag Moussa Diop ñëw wax lu ko neex Macky Sall newul piip loolu moo jaaxal nit ñi mais Gaston moom dafa génnoon mu ne Moussa Diop dafa xamné Macky Sall daf koy waaj dak Macky Sall daf koy waaj dak motax mu ñew di wax 3e mandat ngir buñ ko daké buñ ko daké Sénégalais yi ne ah kii de e mandat motax ñu dak ko way nak nañu waxante dëgg gars yi yow nga nek directeur général génn di wax li am Mali mëna am Sénégal ni mu waxee. boo deful li nga war a def on te fout dehors amul démocratie lañ la nommé amul dara sa sa mandat doo ko eggali peuple bi moom la àndal mais wax fa ay wax yu graaw yoo xam ne bu doon keneen Macky Sall da koy dàq mais lu tax Macky Sall dafa mel ne dafa ragal Moussa jóob dafa mel ne dafa ragal Moussa Diop waaye Moussa jóob moom ni mu waxee dañ ko war a dàq xanaa xëy na Macky Sall moo ko yónni ngir comme Mali dafa dafa doy ngir nit ñi calmer waaw ndax musaa Diop mi nga xam ne dafa newon mom ci bopam dafa bëgg sax nek président ndax demon na am partem han ah, waaye Macky Sall mo ne ko bayil politique bi nga ñew and ak man nga ñew and ak man nga jappalé ma mom nak néna mom il a été le meilleur directeur général ndeysaan té gis nañ fi ay nit yo xamné ci lu ndaw ñu waccé leen ku melni Mamour Diallo han ah, mom Sonko mo génn né Mamour Diallo dafa sacc 94 milliards après ñu démat ba ci biir ñu né non non du 94 milliards ndax euh euh papa Niang laaj na Sonko ne ko waa ñaari milliards rek a jot a génn de te tayru Sarr lañ ko fay Sonko ne amul amul ñaari milliards rek amul ñetti milliards même bu dee fukki dërëm sax boo ko jëlee dañ la war a dàq Mamour Diallo génn wuñ sax ay preuve ñu wàcce ko kon lu tax mënuñu wàcce Moussa Diop Dakar dem dikk Gaston Meng nee na dafa dafa yàq Dakar dem dikk ba ñoom am nañu sax benn turu 10 millions maanaam manqué nañu 10 millions ci xaalis wala amel nañu ay nit fukki millions kon Gaston ñëpp xam nañ ne du du wan baat

Star battle is won. The mission is done. Paramare number one. Wall is number one.